Sunugal 24 point net l'information ak euh, jàmm ci xibaar yi ci Sunugal 24 léegi léegi li gën a fës bokk na ci li gën a fës euh, ci xibaar yi Sénégal amaat na juróom-ñaari cas yu yees euh, ci ñaari téeméer ak euh, juróom ñetti fukk ak juróom-ñaari test yi nga xam ne daal nañ koy réaliser niki ki tey ji ca Ziguinchor Dakar ak Touba amaat nañu ay cas yu yees cas communautaire yi nag jamono ji mu ngi mel ni fii ci Ndakaaru la daal di wullee ñaay ndax am nañu fukki cas ak ñeent yi nga xam ne nag ay communautaire lañu euh, fii ci Ndakaaru lañ ko daal di amee lu toll nag ci ñaari lu toll nag ci ñaar fukk ak euh, benn commune euh, ñu daal koy mu daal di tas foofee Abdoulaye Balde mi nga xam ne nag da doon sàkku ci CREI yi ñu daal di yëkkati teg loxo gi nga xam ne teg def nañ ko ci ay moomeelam li nu mel nag CREI yi daal na koy bañ daan ci dikkaat ci nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi. ay euh, niis euh, de contamination maanaam euh, njot yi nga xam ne am nañ ko ci ay nit yi nga xam ne dañ koy dañuy liggéeyee ca Dakar dem dikk ñu wàll ko ñenn ci askan wi ndaxte nag ñoom ñi lee amoon nañu benn kaa ba tax na nag ñu daal di confiner yenn ci seen dawalkat wala yenn ci ay nit yuy liggéeyee foofu leeral yi ci biir xibaar yi lay doon ca Daara Jolof benn émigré moom moo daldi di siif benn jigéen euh, bu am euh, boroom kër leeral yi ci biir xibaar yi lay doon ca Thiès nag euh, faat bakkan bi nga xam ne amoon na fa moo di Ngumba Njaay mi nga xam ne nag moom moo rayoon Massayer jàkk yoon daal na koy teg loxo mbokk yi bu ngeen taaxirloo tuuti yaatal ak faram gi. salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci yaatal ak faram-fàccee xibaar yi nañ leen ko junjee woon ca bopp ba senegal amaat na juróom-ñaari cas yu yees ci ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari test yi nga xam ne amal nañ ko niki tey jii nag ca ministère bu ñu dénk wàllub wér yaram bi la fa rek mooy amaat nañu juróom yu positif ci test yooyu nga xam ne amal nañ ko ba tax na nag. bokk na ci ñoom juróomi cas yi nga xam ne ay kaa contact la ñi nga xam ne doon nañ leen euh, suivre ñu daal di amaat euh, ci loolee ñaari kaa communautaire euh, ba néega ni nag fii ci Sénégal feebar bi mu ngi gën di woy rawatina nag li nga xam ne moom la ñu tuddee cas communautaire maanaam ñi nga xam ne dañuy am euh, li nga xam ne moo di Covid 19 te xamuñu ana kan moo leen euh, wàll ñeenti nit nag euh, daal di nañuy tane ba ñibbi seen kër maanaam jamono ji seeni test daal di nay négatif jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram bi Abdoulaye Diouf Sarr. di woy ba tey eh, di xamle ni eh, Sénégal daal dinay am eh, ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaari cas yi nga xam ne nag daldi nañ leen testé positif fii ci Sénégal téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom ñaar daal di juróom ñett daal wér ba ñibbi seen kër ñaari nit ñàkk ci seen bakkan kenn ñu daal di koy évacuer téeméer ak ñeent fukk ak benn ñu nekk su traitement ci lopital yi coronavirus ba tey euh, ci la ñuy desandi ndax euh, fii ci ndakaaru Ziguinchor ak euh, tuubaakaay kaay yi ba tey mu ngi wëy di bari ndax juróomi kaay yi nga xam ne nag nemmeeku nañ ko. Euh, ca Ziguinchor Touba daal dinay am ñaari kaa ci jamono ji euh, may addu ngeeni teew lu toll nag euh, ci fanweeri cas mu mën a yegg nag ci fanweeri cas di kaawu tuubaa yooyu depuis ba virus ba tàmbaleek léegi Ndakaaru nag mu ngi mel ni tamit cas yi fii la gën a bare Louga ak Goudiri niki tey jii nii amuñu benn kaa bi nga xam ne fa la sokkeekoo ñaari kaa yi nga xam ne tudd nañ leen tey nag ci communiqué bu bàyyeekoo ca ministre ministère bi ñu dénk wàllub euh, wér-gu-yaram bi ñu nga bàyyeekoo ca Touba kon nag euh, Touba jamono ji am na ñeenti cas euh, communautaire ba tey ci mbirub Covid 19 bi la ñuy wax ba tey ak cas communautaire yi nga xam ne nag mu ngi wëy di jaaxal ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wàllub wér gu yaram bi ndax ci jamono ji. tey jii amaat nañu ñaari cas communautaire bu ñëw rek euh, dolli euh, ci yeneen i yi nga xam ne jotoon nañ ko am limba daal di toll nag euh, ci fanweeri cas communautaire ci diiru nag ay fan lu ni nag tax ba jëwriñ bi tàmbalee wax ni askan wi nañuy jëfandikoo lu ci bari masque fu ñuy mënti dem ngir mën a moytandiku cas communautaire yooyu nga xam ne nemmeeku nañ ko ca Kër Massar jam ñaajo Rufisque Pikine Thiaroye Gare Yëmbal Yëmbal Sud Mbao medina Gueule Tapée Fass Colobane Plateau Golf Sud Wakhinane Nimzatt Ndiarème Limamoulaye yoof ak euh, Mermoz euh, ba tey ci mbirub euh, Covid 19 ca Dakar dem dikk boo mayuwul nag ay nit danañ leen fa wàll te duñ ko xam ndax juróom benn fan juróom ñaari fan ak juróom ñetti fan ci weeru mars ay cas yi nga xam ne déclaré woon nañ leen fa ñu daal di am euh, Covid 19 euh, ñu détecté woon ko ca euh, boîte ba. ba tax na nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yor kër ga daal di wàcc seeni liggéeykat rawatina nag benn infirmière ñu daal di ñibbi seen kër ndax dañoo testé woon seen benn liggéeykat positif mu daal di koy am ba tax na nag amul benn nit bi nga xam ne daal di nañ lay yóbbu quarantaine ngir xool ndax mën ngaa am jàngoro ji wala déet lañu ñu def rek. rek mooy dañ leen bàyyi ñu ñibbi seen kër te moo ne day ñoom euh, liggéeykatu Dakar dem dikk boobu amaana laale nañu ak euh, ki nga xam ne moom lañ fa testé woon euh, positif waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñoo jottali xibaar bi di Sénégal set jéem nañoo jokkoo ki nga xam ne moom mooy directeur général bu Dakar dem dikk waaye dafa mujjuta antu ñu wax rek euh, ci leneen muy euh, waa yi ak euh, Abdoulaye Balde mi nga xam ne nag dafa sàkku ci ñoom ñu daal di koy delloo alalam gi nga xam ne dañ cee teg loxo waaye nag CREI jamono ji dafa lànk ba tëdd ci suuf ki fi nekkoon député maire bu Ziguinchor di Abdoulaye Balde lañ ko doon toppee gannaaw bañ koy topp ne dafa am alal ci nu jaarul yoon ci noonee rek la ñu jël ay euh, alalam yu bari bokk na ci ay euh, meuble ak euh, yeneen yu ni mel daal di koy teg loxo ba tax na nag lu moom mii nga xam ne moom moo jiite UCS daal na bind ab bataaxal jaare ko ci ay avocat am ngir ñu bàyyi alalam googee delloo ko ko moom ak soxnaam si nga xam ne tamit dañoo jàpp ne alal ga nga xam ne moom la yor euh, lewul lu ni mel nag daal di nañ ko koy euh, gàntal naam sax euh, moom Abdoulaye Balde jamono ji neexoo na ak neexoo na lool ak njiitu réew mi Macky Sall waaye lu ni mel terewul yoon di wëyal di def liggéeyam ndax jàpp nañ ne seen alal googu anam gañ ko amee jaarul yoon ñu wax ci leneen ak euh, faat bakkan bi nga xam ne nemmeeku woon nañ ko ca Thiès Ngumba Ndiaye moom moo faatoon euh, Massayer Diack jamono ji mën nañoo xam mën nañoo wax ne xam nañu analam moo waral mu daal di koy euh, faat ndax Massayer Diack moomee nga xam ne xaritam moom moo ko faatoon di ab boucher maanaam da doon jaay yàpp ñu gën ko xam ci Ahmadou Bamba Ngom ñu ñu ko doon woowee Mara moom Ngumba mi nga xam ne nag euh, dañ koo faatoon euh, dafa tëjoon euh, xaritam bi ca toilette yi da ko bàyyi ba mu dugg ca toilette ya rek mu daal di koy tëj foofu kooke nag fëgg ba sonn Euh, ubbilu ko waaye nag euh, gannaaw ba mu ko ubbilee mer ba futtu la xarit ba daal di def euh, bëggoon ko rek daal di dóor ci noonee rek la daal di jë daw duggoo ca néegam ba mu ko saaga saaga yu metti nag Massaer mer ba futtu la daal di def gannaaw saaga yooyu mu daal di dugg ci biir néegam jël rek paaka ba nga xam ne moom moo fa nekkoon daal di koy jam Euh, ci wetu poitrine bi noonee nag euh, ki nga xam ne moo di victime bi euh, daal di daw dem làqatu ca wetu stade ba Ahmadou Bamba Ngom topp ko fa loolee nag tax mu ñàkk deret gu bare ci noonee la daal di daanu ñàkk bakkanam xibaar yi nag ñu jeexale ko ca Daara Jolof fi nga xam ne nag euh, benn immigré euh, moom moo daal di bëggoon a siif euh, moom moo siif sax la ñuy wax benn soxna si nga xam ne nag dafa am borom kër moom immigré bi mu ngi wuyoo ci turu Mamadou Lëy daal di nañ koy defeere ca parquet ba mbir ma nag mu ngi amee samedi benn fukki fan ak benn ci weeru avril ca daara foofee nag soxna si dafa bëggoon a euh, ñibbi gannaaw nag ba mu amulee oto gis euh, Mamadou Lay miy dem euh, daal di koy ñaan rek mu yóbbu ko moom mi le nag daal di d'accord waaye nag daf ko ne du mën a jaar ci yoonu principal bi ndax foofee nag takk yi ñu ngi foofu di arrêté li nga xam ne ñoom ñooy oto yi dafay jaar rek ca carrière ba ca carrière yi soxna si nag euh, daal di d'accord ndax euh, njotu ci woon dara lu ñaaw lëy nag euh, daal di mujjee jaaree noonu daw lu yàgg daal di taxaw bi mu taxawee nag ne soxna si mu wàcc ba soxna si bañee ca la ko daal di fitnaal wàccee ko ba noppi daal di koy siif gannaaw ba soxna si yuuxoo ay yuuxu yu metti ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ca wet ba noonu daal di nañ koy ñëw jàppale ba mën a jàpp ki nga xam ne moo di immigré bi waaye nag euh, jot na ko siif euh, ca la ñuy woo rek euh, gendarme ya nekk daara mujjee nañoo ñëw ca nu gaaw Euh, jàpp ki nga xam ne moom mooy euh, immigré bi daal di koy euh, teg loxo jamono ji may àddu ngeen di lu sax defeere nañ ko ca parquet bu Louga moom Mamadou Lay waaye nag dafa am retour de parquet lañ koy toppee nag moom mooy attentat à la pudeur mbokk yi mu nekkoon liñ ngeen indiloon ci ay xibaar dig daje beneen yoon ci suñu yeneen jotaay xibaar jaa ngeen jëf.